donc la réalité du terrain Amadou ñun ñi nga xam ne ñun ñooy njabooti président Macky Sall ñun ñoo koy teeru gunge ko ci lool parce que nag Amadou candidat la boo xam ne président Macky Sall si mbaaxam mënoon koo tànn te du laaj kenn. Mhm. moo ubbi woon ay concertation laaj partim laaj coalition am laaj ñëpp jël liggéey bi denk ko le président Moustapha Niass mu xool. kan moo ko si gën a gën a gën a dal xelam muy le premier ministre Amadou Ba tey jox na ko ko. Mhm. ne ko mooy suñ candidat. boot ko fas yéene ko roggante fas yéene nag campagnal ko ànd ak moom ci réew mi parce que nag président Macky Sall kum boot. boo demee da nga am ku la teer ku la ku la ku la ku la ku la dalal. ah le président Sall sera euh, de la campagne du début à la fin loolu la wax. mooy diriger campagne bi mën na nekk mën na nekk pour moom mais mën na aussi am effet effet effet effet inverse bi. du du du am benn effet inverse parce que les Sénégalais am na ñoo xam ne. parce que voilà il faut à Amadou Ba la continuité euh, le troisième mandat bi nga xam ne Macky Sall da cee renoncé. non xëy na loolu c'est les c'est les c'est les conspirationnistes rek ñoom ñoo koy def. Mimi Touré loolu nga ko jàppee. oui Mimi Touré c'est un adepte de la conspiration c'est quelqu'un boo xam ne c'est un aigri bon xol bu tàng day waxee rek mais Mimi Touré moom ay waxam xam nga. leen jël wax ji au sérieux non mënuñ koo jël mënuñ koo xam nga koo xam ne xam nga koo xam ne xam nga koo xam ne lim lay laaj boo ko joxoon du wax donc boo ko joxul buy hmm. wax aussi doo ko jël doo ko jël en considération non ñun xam ne terrain bi xam nañ Sénégal je dirige une commune rural hmm. tey sama commune bu fa bu fa président ànd ak Amadou Ba nit ñi dañuy génn teeru ko parce que def neen fa loo xam ne ni euh, dans dans la région de Kaffrine dans le département. vous pensez que votre candidat donc pourra s'appuyer sur le bilan du président Macky Sall euh, pour convaincre les Sénégalais ñu confier ko euh, li nga xam ne mooy le pays. amul feneen fu mu a appuyer fu dul le bilan du président Macky amul beneen choix. donc c'est Macky qui va rester au pouvoir. Macky ne va pas Macky a renoncé à sa candidature. te eh, amoon na ci amoon na ci amoon na ci personnalité wala les épaules assez larges euh, pour convaincre sénégalais yi nar a jàppandiku ci Macky Sall là ça veut dire que c'est l'appareil politique qui accompagne Amadou et l'APR et la coalition Benno Bokk Yaakaar. après nag ñun ñëpp ñu ànd ak moom dem seeti sénégalais yi convaincre ñi nga xamante ne nii ànduñu woon ak ñun.